tey yàlla may la gan bu góor baaboo tuddee ko euh, suñu wër Habib Mbacké leen day kontaan si àdduna te man suñu wër Habib di ko sa diggante baaboo lan la mën a parce que macha allah da ngaa jox la baaboo baaboo sama lépp la sama papa la sama xarit la sama lépp la ma

te sama papa bu mu gaañoo ba léegi loxo mosul jug si ñun ba nu ñu yóbboo Amérique ba tey jii lu ñu mën rek gannaaw yàlla moom la di sant yaawali mi nga xam ne man moo ma yar lu ma xam moom la lu ma am moom la yaawali sama yaay danaan loo wax mu ne fàkki na yaawali moo ko yar man maa ko gënal doom gi tëdd ci biiram di sant nag sama yëpp yëpp bàyyi ceen paalaay moom bi sama nijaay papa la ci man tey jooy ma Abdou Ngom yoon ndax moom fu ne yóbbu nañu ko pour bëgg ñu baax tey internat bi ñu yóbbu pour bëgg rek ñu baax foofu laa xamante baabu yi ba tey def nañu dix ans ba am ñetti doom dix de mariage dix ans tuddee yaayam ki ci topp moom la tuddee sama yaay démb ma laaj ko mu ne ma li ma gën a neex suma jabar mooy dafa bëgg sama yaay ndax man damaa nekk góoru yaay man yaayam ñoom ñoo ma bëgg te boobu sax baabu yi tax Fatou yaayam tuddee na ma doom te boobu daaw bi xam na hmm? yaayam école bi ñu doon jàng suñu ñu daay yóbbu ñu foofu suñu ñëwee suñu xaalisu semaine boobu moo law ba léegi maam laa ko mu bëgg ma man maa ko gënal doom yi ñu jur su ma jotawee baawee sax day tàppale ko ak sago man mënu ma ko fay di gërëm magam yi nga xamante ni dañ ma bàyyi ak seeni doom mënuma leen fay muy am na saw safaay ñun ñëpp seen yoon nekkul ci seen i doom man lañu bàyyi xale yi ñun ñëpp ñu dëkk man fan baaxee dama leen bàyyi ak yàlla ndax aw na suñu mais diggante gis ne que euh, Baboy Balla na ci moom loolu te Baboy assumé relation bi. dëgg la Balla Gaye nit ku baax ba mu àndee Baboy ba léegi dara ñaawul. rek la surtout ak moom. nagam bii mu koy yeewal ba ma ko indee kër ga am nañu mu fa li ma lay wax dama laajte waaye su man moom daf may woo di ma yedd nu ma téyee téyewu ko sama jabar lu wax man sama jabar su ma nekkee amee sax daf may woo di ma yedd su ma ñëwee